ba naa li nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey sëriñ Tuubaa suñu borom mooy ko kàttan ak wér ba lépp mottali ko mu kawe jortam ñuy dellu si fii di yëkkati kàddu ci ndigalam jëme ko ci mboolem bokk julli yi ci Sénégal yëpp ak bokki réew mi nga xam ñoom la seqal réew mi ak mboolem bokk taalibe yi muur yi nga xam ne ñoom itam ñoom la sañ digal sañ leen a tere waxtaan wi nag kàddu yu gàtt lay doon. mooy fàttali rek ak laabire sëriñ bi nag ni nga xam ne ne la ko ñëpp xame nekk bi fi nekkee sëriñ Touba te sëriñ Touba képp ku fi nekkal mate ku sëkk waxtu ne mu di ko wane ca taxawaayam fa adduna tollu lam ca war a def ak lam ca war a jëf xam na ko dana ko def kon ku am kilifa gu mel noonu waxtu ne war nga koy ñaanal bu baax a baax di fàttali ñëpp it ñu xam ni ñu war a ànd ak moom ndax ku nekk ak sa kilifa war nga xam bu baax cër ba mu am nga di ko ko delloo ndax bu ngeen déggee suñu boroom ci wax di wax ci alxuraan dem ba doon jàjji ñi dëkkoon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam leen wax ne laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يخدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات يوجنك دائما في أدنى طلو fii في toll طلو kon suñ digg suñ kilifa nañ koy jiitu ndax moom mii kat loolu daa wax ñi fi nekkal Sëriñ Tuubaa ñëpp daa wax ne sama kilifa dama koy bàyyee sama bopp bàyyi ko boppam loolu nag kon kenn mënta àgg fa mu àggoon waaye ñëpp war nañ koy jàng di ko diglu bañ koy jiitu ngir xam ne moom waxtu ne itam yëpp ni mu ko waxee léegi rek li ñu fi indi mooy dëddu àdduna ak dëgg mat suñu liggéey liggéeyal Sëriñ Tuubaa li cees lépp lu ci toppaat rek la waaye loolu mooy wërtee fi te loolu xam na ko muy jëmm joo xam ne itam nag saa su xëyee luy defar moo ko fi indi yoon wi nag dafa am nu mu muy loo xam ne lu mu fi fekk la te noonu itam noonu la fas di ko doxe mooy kilifa yi fa jëkkoon lepp lo xamne ne nañ ko def muy masuulee buñu wara jël luñ ci àggare xam nañ fañ ko wara a jëri ak nañ ko wara a yoonu mur nek baxawut liñu def ñu diko wax ci radio wala ñu di koy ñepp diko di dégg ndax ñom liñu def dañ koy seeral yalla ak sëriñ touba mi lañ fi tek waye sëriñ bi ci la dëkk té eh, képp ku nekk mo wala nga xam ko man nga ci seere kon yi xew yépp lu nit ñi yegg ak lu ñu yegutu lu ci ne fu fuñ ci àgg ndax moom lépp dana agsi ci moom lépp itam yàlla def na da ko accident la la diglu xam lu mu ci war a jëli dana ko def am na ci loo xam ne nag bu waxtu wa jotee bu dee lu war a leeral dana agsi ci nit ñi am na ci yoo xam nit ñi duñ ko mën a xam waaye nañ xam ne moom yitteem jëpp weesu jàmm yaa liggéey Sëriñ Tuubaa ñim seqal adduna itam loolu la nekkee ñoom ndax man mii dem mën naa ci seere ndax waxtu nekk mu di ma yónni ci ay yittee taalibe yi ak yittee bokk yi ak yittee mboolem jullit yi nga xam ne ñoom la seq réew waaye yittee boppam ak soxlas boppam ak lu jëm ci njabootam kenn mosu koo dégg kon moom fam nekk fa la nekk la mu war a def moo ngi koy def lépp loo xam ne jëf ak seen ci itam dana ci jëf jëf ju mat yoo xam ne adduna si xam nañ ko kon loolu laay fàttali ba ci weesu yëpp yoo xam ne mu ne si ko tudd loo xam ne lu ci ne lam ca war a def bu dee loo xam ne ku ne ci fitna la wala ku ne ci xat-xat wala njàqare mu war laa tàggat moom du ca xaar kenn lu mu ci yëg dana ko def lim ci lijjanti itam buñ toogoon fii di ko lim kenn mënta xam nu mu toll kon loolu mooy li indiwaat lii bi nga xamee ni itam yàlla def na jamono ji yëngu li nga xam ne xew na ci réew mi loolu dogalu suñu borom la bi mu amee itam laata kenn di fi ñëw fekk na moom mu tàmbali caa def la mu ci war a def jokkoo ci it ak ki nga xam ne moom la ci war a jokkool muy ki jiiti réew mi di président Macky Sall lam ca war a waxante moom wax wax na ci ak moom kon loola itam eh, jëru tool leeral sax waaye leeral gi de baax ñi nit ñi xam ne xaarul kenn ci masuuli bi mu war def moom itam lam ko ci waxoon def na ko na ko ko waxee woon bi nga xamee ne loolu jàll itam yexewaat tam yëpp ñëpp ko bi mu amee itam ci la tànn njabootu boppam ci njiital muy délégation boo xam ne ku ko dégg xam ne mën naa représenter sëriñ bi mën naa représenter yoon wi. ka ci jiitu di Cheikh Mouhamadou Bachir ibnu Serigne Moustapha Bachir mii nga xam ne kàddu yam fa yëkkate adduna sépp maasa ci rafetlu ko ndax ku ko dégg xam ne wax na ngir ki ko yónni séddu ci dara lu may yàlla ak sédd ci sëriñ Touba mi nga xam ne moo tax ñu yónni ko fa muy kàddu yoo xam ne itam matal na sëkk ndax ñëpp ko rafetlu kon moom. sëriñ bi nga koy sant ci li nga xam ne séentu woon ko ci moom ba jiital ko ci kanam ngeen ànd ko moom doxi li nga xam ne doon na leen ko doxloo ba yàlla def ci lim def yéen ñi ko seqaloon itam tàmbalee ko ci euh, sëriñ Bassirou Mbacké mi nga xam ne doomi Soxna sëriñ Bassirou la ak euh, bokki bi yi nga xam ne yéen a seq liggéey bi tàmbalee ko ci Mamadou Diop mi nga xam ne maamam Cheikh Yaba xam nañ. lim doonoon ci yoonu murit ca guerre ba ñëpp xam nañ ko kon bu koy sëriñ bi duggalaate ci biir delloo si loole la maître ma Niang dégg ngeen li ko sëriñ bi seere loon adduna sépp dégg nañ ko magum taalibe la ci yëf ci liggéey bi Maxtaar Sourang maamam ma Sourang ñëpp xam nañ lim daj ci liggéeyu jumaa ji àndoon ko Cheikh Mouhamadou Moustapha kon ñu xam ne délégation bi sëriñ bi yónnee tànn na ko xool ko kon Cheikh Mahamadou Bachir eh, sëriñ bi mu ngi lay yóbbantewaat cant ak ngërëm yow mi nga xam ne yaa jiite woon délégation bi mu yónni woon di la yóbbantewaat ci bi mu la yónnee ci ñoom ndax bi nga dellusee ba leeral ko ba nga àggee jot leen kàddu yu sëñ bi wax leen ko ñu nongul la ko nongul gu gaaw goo xam ne teguñ ci lu yàgg dangaa wax rek daaneel ñu nongul la ko waxal ko seen bopp ne bàyyi nañ liñ jàppoon sëriñ bi nag nee loolu xam na ne jàmmi réew mi tax te moo tax mu doon leen ko ñaan kon nag cant rek moo ci war ak ngërëm ngeen xam ne itam loolu ngeen ko defal bàyyi ko ngir jëmam itam xam na ko kon mu ngi lay yóbbantewaat ci ñëpp nag bàyyiwul kenn ndax xam na ne mbooloo lañ waaye mbooloo mépp cant gi kenn ku ci ne àgg na ci yow ginnaaw loolu itam eh, sëriñ bi. ngir xamne al fitnatu naimatun laana allahu man ayqasaha fitna yàlla rëbb nako koy ye kon nak lépp luy wara indi jàmm wax na mom lolo worte fa ndax mom lu dug defar moy li nga xamne war na kon in urid illa al islah mastataatu li jëm ci wàllu doxalinu politique nak lolo mom du ciirem la biir la ci def ndax talibé serigne touba Tuubaa la seigne digal ñi mu seqal réew mi itam mu sañ leen a kon nag bi nga xamee ne yéen ñëw ngeen wax ko kàddu bi nga xam ne bàyyikoo na ci ñooñu la ci wërtee fa mi def na ko mooy jokkoo na ci ki nga xam ne moo jiit réew mi leeral ko loolu yëgal ko ko ñaan ko ci lam ko ci war a ñaan ba moom itam eh, dégg na ko te incha allahu ni ko ko sëriñ bi ñaanee it gëm nañ noonu la koy nangule kon loolu itam na àdduna adduna sépp xam xëy na ni mu demee tax di su ko leeral waaye loolu sëriñ bi ci la dëkk waaye nag comme waxtu demee na nii baax na it adduna sépp maase ci xam yi fii ni mu jaare ba doxee ba agsi fi kon ak sëriñ bi moom itam mi ngi koy sant ci cir boo nga xam ne jox na ko ci boppam ndax léeg-léeg ñuy dégg sëriñ bi di ko sant te nit ñi duñ xam nu mu demee loolu lu mel nii lekk moo koy waral taalibe bu jaaxle ñëw ci sëriñ bi ndax sëñ bi ni ma ko waxee amul yite boppam mosu ko wax soxla yite taalibe yi lam ak yite jullit yi lum ko ci wax na bu ca taxawee lam ca war a def kon cant ga da koy war loolu rek mooy li nga xam ne mooy li ko indi sëriñ bi nee na mi ngi sant nag kilifa diine yi nga xam ne ñoom la war a jiital ndax bi nga xamee ne lii am na itam eh, kilifa diine yëpp na bàyyiwul kenn xam naa bu ma ci tuddee sëriñ Babacar Sy Mansour mu mën a yóbbaale kilifa diine yi ci des yëpp. waaye ñoo xam ne ñoom itam àndoon na ñoom liggéey bi ndax suñ borom dafa wax ci alxuraan ne istajibu lillahi wa li rasul iza daakum li maa moo tax itam sëriñ ahmadul badayu mu cheikh mahamadou fadil moomu la fa yónnoon mu ànd ñoom liggéey ba lépp ci rafetal ba yàlla def ci lam ci war a def kon nag ci jeexal rek mooy sëriñ bi nee na mi ngi sant jullit yëpp di sant bokk réew mépp di sant bokk taalibe bi yëpp rawatina na ñi dëkk Tuubaa ndax ñoom nañ xam ne tawféexi dëkk ak Serigne Touba lañ moo tax aar leen ak sàmm leen da ko war ñoo xam ne Serigne Touba mi dëkkal na ma ko fàttali woon ci waxtaan bu njëkk yi rek Touba dëkk la boo xam ne sëriñ Touba dafa wax ne bi koy sanc yaara ka tax ma ko mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxol nit kon nit ñëpp maase ci xam ne dëkk bi dëkku daara kon lépp loo xam ne koy def jëf waxoon ne na nga teewlu Serigne Touba rek. boo teewloo Serigne Touba rek da nga xam ba xam loolu war nga ko defam déet moo tax li mu fi war a digle mi ngi koy digle mi ngi leen di sant nag di leen gërëm ngir xam ne ne taalibe Serigne Touba yi ndigalam rek la ñuy lépp lu ñu defee dàkk ndigalam ak bëgg ma tax ñu di ko def ndax fu déggee kàddoom rek lañ ca def danañ ko ci def ngir xam na ne wa ma huwa salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari lépp lu leen digal xam nañ ne loola mooy li gën ci ñoom kon sëriñ bi ne mi ngi leen sant leen gërëm di ñaan jàmm ci réew mi yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm ni mu ko ñaane woon yàlla eh, sotti jàmm ci biir réew mi neewoon ay réew mi na seenum xel dal waxtu ne loolu daa wax ndax bañ amee Sëñ Tuubaa lañ am jàmm kon nag lépp luy nuru fitna bu dëgg ma lee it la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon rek na xam ne de ayoo du weesu ñoo ko yëkkati ndax neen loolu ma leer laa ci am Sëñ Tuubaa fàggu na ko dem njëkk tey ngir fàttali ci biir waxtaan wi rek fii xew-xew yu toll sëriñ bi xam ngeen ne nit ñi séentuwuñ ci moom loolu ndax ñëpp wari jël di fi andi waaye moom jàpp na ne lu baax moo ci war a jiitu ñépp moo tax lépp lu xew rek dana ca feeñal yéene ngir soññ ci àdduna sépp kenn ku ci ne xam ne sawarte fa moo tax lii fi xewoon itam ba am ci ñu ci ñàkk seen bakkan te xam nañ ne bakkan bu faatu ni mu diise am na ci ñoo xam ne am nañ ci gaañu gaañu. moo tax ci biir loolu itam mu yëkkatiwaat juróom fukki million ngir jàppale ko ñooñu nga xam ne lor nañ ci ngir dugal ko ci biir liggéey bi jàppale ko réew mi jàppale ko ñooñu nga xam ne seen bakkan wàññi ko la ci di ñaan itam ñëpp roy ko ci ngir xam ne loolu mooy liggéey ci senegal te mooy jàmm réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullah